Abdoul Malick Bousso ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay Elisabeth. ngay membre say say euh, auditeurs. auditeurs oui. Eh, ngay membre bureau exécutif bu forum civil forum civil eh, mu daal nag baaxee Sénégal benn plaidoyer bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal eh, ci ba ñuy waajal bés bi ñu jagleel xeex li di mbuxum ndax tey mën nga ñoo fàttali plaidoyer yooyu nga xam ne tënk ngeen ko ci ci ñeenti ponk. xam nga Elisabeth forum civil. Mhm. lu muy yëngatu mooy xeex ger ak sellal yorin wi nga xamante ne moom la ñu yore Euh, li askan bi bokk. Mm-hmm. mooy mooy gouvernance bonne gouvernance mm-hmm. euh, forum civil nag dafa yàggal la liggéey ci loolu di ci taataan xam-xam mm-hmm. di ko séddale séddale boobu moom lañu ñu def euh, barki démb moo xamante ne bés bi nga xamante ne moom mooy bés bi ñu jagleel xeex ger ci àddina si ñu nag dañoo yàgg di def ay étude di porter ay plaidoyer dañu am ñetti outils de plaidoyer yu ñu jagleel réew mi benn mi day saytu déclaration de patrimoine mooy sas bi ñu sas ñi nga xamante ne dañ leen dënk koomu réew mi wala ay kilifa yoo xamante ne dañ leen fal jox leen gox yeeg gox goxaan yi wala président de la république nommé leen ministre commencé ci président la république mm-hmm. ba ci maire bi gën a tuuti ci Sénégal ñu sas leen ne puisque dañ leen dënk lu ñëpp moom mm-hmm. dëkk lépp ñëpp bokk yéen seen alal fu mu toll dañ koy xayma ngeen dem déclarer ne lii mooy suñu moomeel ñu xam ne suba boo leen génnee ci liñ leen dénk buñ ko buñ boo leen ciy génn ñu xam est-ce que lañu ñëpp moom fekk siwul li ngeen moomal seen bopp loolu mooy déclaration de patrimoine ñu xool ne niñ ko tëggee hmm. tëggin bi war des na parce que d'abord am na ñoo xamante ne dañoo war a dem def déclaration de patrimoine bi defuñu ko te benn daan dalul seen kaw ñu ne loolu dafa war a daal ñu xayma def ko ci loi bi obligation déclaration de patrimoine ñu jagle ko ku ko deful sanction dal sa kaw ku ko def fekk am na loo dissimulé waxoo dëgg gi sanction dal sa kaw ñu ne wat du yem foofu parce que mbir mi dañu ne ñii ñooy déclarer patrimoine ñi war a déclarer patrimoine war nañ ko yaatal mm-hmm. am na ñoo xamante ne koom lañ ko dénk bu jot milliard da am loo xamante ne dombal tànk bi yore da ko yore pouvoir yoo xamante ne dafa sañ-sañ ci alalu nit ak ci dundinu nit ñi. Mm-hmm. kooku guerre mun ko yomb. ñu ne kooku nañ ko boole ci loolu. ñu ne nañu yaatal au lieu ñu ne un milliard nañ dafa quatre cent cinq cent millions koo xamante ne budget boo yore bu tollee ab noonu nga war a def déclaration patrimoine parce que un milliard dafa rëy du ñëpp a ko war a mun a am. ñu mm-hmm. ne xoolal loolu nañu ci loolu ñun tamit Sénégal. am na loo xamante ci l'impôt la koy jëlee impôt bi muy jël mun na am euh, euh, gars yi di ko jéem bañ a fay loolu nag dañuy dem ci li ñuy tuddee convention de double non imposition mooy convention fiscale yu Sénégal di signé ak yeneen réew signature yooyu nag ñu dem xayma ko xool ne am na ci loo xamante ne réew mi da koy ñàkk ñu ne loolu tamit nañ ci taxaw pour que Sénégal buy signé ay convention fiscale mu xool ay convention fiscale yu am na njëriñ askan wi euh, loolu mooy euh, euh, li ñu tënk leneen li mooy ni ñu Euh, industrie extractive yi. Mm-hmm. yooyu tamit def nañ ci ay ay ay ay recommandations. def nañ ay recommandations ñu yore napp gi. napp gi tamit dafa am ay rëq-rëq yu bëri yoo xamante mu ngi ci. jooytu yu bëri yu jógee ci pêcheurs yi jóge ci euh, citoyens yi yëngatu ci mbiru napp wi. Mm-hmm. loolu tamit def nañ ci ay ay ay ay recommandations yu bëri pour ñu mën a sellal yorinu géej gi. sellal boobu muy fekk ne euh, dafa dañoo war a dugg ci lu mel ne fiti. moo xamante ne ci instrument international la. boo mm-hmm. xamante ne mooy xayma yorin wu sell ci biir pêche. Euh, dañuy déclarer euh, la pêche bi la napp gi jur yan bateau ñoo fi nekk. bateau yi yan xeetu nationalité lañu euh, lan la ñuy capturer comme volume yan xeetu napp la ñuy napp ñan ñoo moom bateau yi ñan ñoo ci njëriñu loolu yëpp ay information la yoo xamante ne buñ ko amee dina sellal yorin bi ñu yore géej ak yeneen yeneen yeneen yeneen document yoo xamante ne forum tamit daf cee liggéey war ko bokk ak askan wi pour ñëpp mën a jógandoo parce que lay soppi mbir ma ak doxinu Sénégal. Mm-hmm. Euh, naam policier yi la ak ñun société civile ak yenn médias yi. citoyen bi la a ñor. citoyen bi nag il faut mu yore ay xibaar yu jot. Mm-hmm. xibaar yu mot xibaar yu baax pour mun a jóg pour li mu war a noddanti ci réew mi mu noddanti ko. ndax tey forum civil dafa seetlu ne ñeent secteur yooyu nga xam ne ci la def focus a neex bi da cee bëri. waaw xam nga xam nga yaama neex mu ngi nekk ci euh, ñu fal ma wala ñu dénk ma. Hmm. may def lu ma neex ci li nga xamante ni a ko bokk. Hmm. loolu moo tax il faut ñu sellal gouvernance ba. te loolu mu ngi jaar ci réforme judiciaire pour que lu def li nga warut a def muy luubal. muy tëradi euh, mm-hmm. muy yaradiku muy leneen ak leneen yoon mun la atte ci sa ak sa yelef la nga def ñu reproché la ko ñu teg ko sa kaw loolu dafa laaj ay réforme judiciaire dafa laaj ay réforme institutionnelle mm-hmm. dafa laaj ñu soppi doxin yi dafa laaj ñu équilibré pouvoir yi loolu yëpp dafay ay jéego yoo xamante ne benn bu nekk dafa lënkaloog beneen bi chaîne la loolu moo tax ñu ne gouvernance gouvernance dafa am solo ci réew parce que gouvernance bu sellee réew ma day mucc ci anam yu bëri mhm. euh, loolu dina wàññeeku parce que la war war a jagleel ñi nga xamante niw ji doole lañu war a jóge ci koom wala jóge ci galak bi nga xamante ne moom lay état di dajale mhm. war ko def ci politique publique yi ak ci infrastructure yi population yi danañ ko ci jëriñoo parce que luubal du ci am wala luubal bu ci amee dana wàññeeku ba nga xamante ne euh, nit ñi dinañu yëg ne seen alal ak seen koom yorin bi ko yor dafa sell. ñu lancé waale quinzaine nationale de lutte contre la corruption euh, tey jii ndax jàpp nga ne amal ay activité yi ni mel dina tax ba nit ñi gën a conscientiser wu ci lii di wàllum ger. xam nga euh, ger naam danañu teg ay jumtukaay. Mm-hmm. naam dinañ def ay plaidoyer. Mm-hmm. naam justice war na ko mun a saytu pour sanctionner ko. Mm-hmm. mais la ca gën a gën fléau social la. parce que ci société bi la ne bàyyiwul kenn bàyyiwu ñu ñun société civile bàyyi leen bàyyiwu leen yéen journalistes yi bàyyiwul citoyen bi nga xamante ne mu ngi dugg ci oto yi di di dugg ci marché yi di jëflante ak àddina bàyyiwul ñi nga xamante ne ñoom la ñu réew mi ñu yoral ñu yooyu yëpp dafa laaj lu mel na quinzaine bi ñu war cee waxtaanee stratégie nationale de lutte contre la corruption cest acteur bu ne ku mu concerne de près ou de loin ñu xam ci lan la ñuy dox yan mooy menaces yi naka lañ koy fànqee lan moo war waral ñu jóg pour suñu réew mucc ci yenn musiba yi loolu dafa laaj euh, quinzaine bi sax euh, naam euh, exemple la rek mm-hmm. mais mooy war a nekk suñu liggéey saa su ne. Mhm. bës bu ne waxtu wu ne. ndax sensibilisation bi amul lu ko war a gën a jiitu sànq yaa ngi koy wax muy inégalité sociale ndax loolu waruñu cee gën a taxaw balaa ñuy wax waxi xamal nit ñi ne ger euh, am na lu muy yàq ci mim réew. xam nga inal inégalité sociale lan moo koy creuser. li koy creuser mooy corruption. corruption mooy li ñëpp bokk. ñenn ñi aakimoo ko. boo daggee loxo yi di aakimoo. li ñuy aakimoo mucc séddale bi aw yoon. néew ma ne néew ju doole yi dinañu disparaître ci Sénégal mm-hmm. mais au moins sénégalais bu ne di nga jot yi nga war a yelloo ci li ñëpp bokk loolu moo am solo la ca des nag liggéey moo ko indi comme da nga koy liggéey mm-hmm. mais li ñëpp bokk ñu ne lii ci suñu askan la war a dem mm-hmm. ñenn ñi aaki moo ko loolu mooy creuser inégalité loolu mooy indi vulnérabilité loolu nag ñun ñëpp ñoo ko xeex loolu moo tax Euh, la lutte contre les inégalités la ko lal mooy d'abord luubal bi na def disparaître luubal mooy li ñëpp nga jël ko nga jël te dara du la ci fekk bu ñu doon dóor daan yi nit ñi du ñu ñemee def li ñuy def comme li ñu dajale dina am man njëriñu askan wi parce que dina dem fi mu war a dem. tey jii euh, nga nga ne euh, nga jël alalu jàmbur te dara du la ci fekk maanaam alalu askan wi. waaw euh, fan fan la métit bi nekk bu dee di nga jël dara te nee nañu yoon bu am dëkk bu am yoon la te dara du la ci fekk kon problème bi fan la. impunité ak manque de volonté politique pour xeex loolu parce que nee naa la jumtukaay yi am na. kon ci ñu convention internationale yaa ngi fi. Union africaine am na convention. Mm-hmm. Nations Unies Sénégal am na ay loi am ak ay instrument am hmm. mais ngal la fekkee nag nii kii def na warul def man laax ko wala dossier am du ma ko jox tribunal hmm. wala bu ma ko joxee procureur procureur liggéey ba ca war du ko ci def hmm. di xaar di nëgandiku problème bi mais loolu nag il faut que ñun ñëpp ñu ko yuufu ko lii dafa war a dàq règle ak loi dañ koo defar fii pour mu réguler mais dañ ko war a appliquer tey dañuy gis muy président de la ba man mii loi bi dafa tegu sam bopp dafa war a tegu ci bopp ñëpp ñëpp ñaari citoyen amuñu citoyen Sénégal la ñu wax amuñu citoyen yii dañu war a jàpp nga ne dina fi yomb mais xam nga xam nga euh, boo gisee boo gisee ñuy jóg di taxaw di xeex c'est parce que boo gisee mu yàgg fi c'est parce que ñi war a jóg xeex ko jógandooguñu mais sénégalais yi bu ñu décidé lii dañ dañ seen réew parce que ñi fi teg ñoom ñoo leen fi teg dañ leen dégg réew mi moomuñu ko bu ñu leen nee nii la bëgg ñu yore suñu réew mu nekk dëgg ci ñun mais ci loolu la def wala ñu jóge fi abale ku nekk ci ñun am tuuti loo xam ci loolu nga ñëw ci bërëbu yëglekaay yu mel ne seen bërëb yi mm-hmm. wax lan mooy tawat ya ba ñëpp dégg doo ko jëf ja nag ñun ñi ñoo ko a jëfe mm-hmm. l'action elle doit citoyenne dafay am ay rapport yu ñuy nemmeeku yi nga xam ne ay euh, organes yu fi nekkul ñoo koy def waaye tey jii mu am benn société civile bi nga xam ne euh, nemmeeku nañ ko lool ci wàllum euh, xeex guerre comme forum civil par exemple tey boo doon évaluer ndax guerre googu yokk na ci mim réew wala dafa wàññeeku. bon xam nga xam nga xam nga lu wàññeekuwul moom dañuy jàpp ne rek yokk na parce que Sénégal bi ko ko commencé xayma yàgg na mais de 2013. bu ñu tegee ay jumtukaay Sénégal dafa am benn progression bu mu def yore woon euh, quarante deux quarante trois points la amoon ci cent mm-hmm. cent mooy téeméer mooy not bu gën a ngante juróom fukk mooy moyenne ñu ne waaw yow placé nga euh, passé nga classe supérieure ñun 2013 ba léegi. 3 mm-hmm. points rek la ñu yokk ci 43 yi ñu amoon ba 2016 ñu avancé 2016 jëm léegi 45 points yi ñu amoon rek la am. daanaka suñu baaraam daal ba tey foofu lañ ne. waaw foofu waaw dañuy def sur place c'est-à-dire dañuy <laughs> redoubler. benn yoon moom baax na mais redoubler deux mille dix sept. ñetti yoon deux mille dix sept redoubler deux mille vingt. ah bu yàggee de sa doom ngay defandoo CM2. boo moytuwul dañuy cartouché. moo a am bac. Uh-huh. waaw loolu loolu moo ñu dal. donc ça signifie que. Euh, perception corruption bi am ci Sénégal. Uh-huh. corruption bi wàññeekuwul ci gis-gisu askan bi loolu nag lu muy firndeel mooy que ñun ñëpp suñu liggéey dañ ko war a gën a yokk ñun société civile yéen journalistes yi état bi nga xamante ne moom moo war a réguler lépp moom lañu war a moom la ñuy dénk defar bi ak noddanti bi mm-hmm. parce que boo defaree baaxul sa wareef mooy noddanti dëgg la yi ñu jot est-ce que instruments yi doy nañ mm. est-ce que instruments yi bu ñu doyee tamit ñu ngi leen di koy jëfandikoo ni mu waree bu doyul ñu yokk yokk ko fekkee doy na jëfandiku bi moo baaxul ñu sellal jëfandikoo bi loolu mooy suñu wareef fi mu ne loolu moo tax quinze quinzaine bi loolu moo tax euh, plaidoyer yi war a jóg euh, dafa wone rapport yi ñu génnee mooy que Sénégal ba léegi génnagul ci zone rouge bi te boo génnul ci zone rouge yi ngay nekk ci en vulnérabilité parce que nit ñi xëy ba du demee noonu fajoor ba bu demee noonu xale yi duñu jàng ni ñu war a jàngee te bu yàggee la xew cee yenn réew yi ñu wër lakk ba fa am ak musiba ba fa dina dal ci réew mi te fay réew mi du préparé wu nu muy affronter lu mel noonu la kay lal mooy corruption ak jaar-jaar yoo xamante ne yaa ma neex yombal lu nekk lu yomb euh, loolu du tabax réew te réew bu tabaxul lu nekk bu dalee ci moom war ko mën. ndax loolu dafa firndeel ne bu baax a baax. ci uh-huh. ndax mel dafa firndeel ne euh, corps de contrôle yi fi nekk defuñu seen liggéey. waaw euh, dafa firndeel ñetti ñetti jàngat mun nañ ko si am. Mm. ñu ngi def seen lool ca def ko ah traitement ñi ko war a traité judiciairement traité wu ko ni ñu ko waree. Ah, defuñu seen rôle na mu waree wala motowul nu mu war a mote wala li ñuy def àdduna bi fu mu toll laaj na ñu soppar ñi li ñuy defee yokk leen xarale yokk leen ay moyens yokk leen ay jumtukaay cest def ay réformes yoo xamante ni day gën a dëgëral code contrôle yi. Ah, naam ah, lu mel na. par exemple procureur de la république ou bien justice bi ñu xool naka la ñuy fexe ba emprise bi euh, euh, pouvoir euh, pouvoir exécutif bi am ci moom wàññeeku ñu fexe ba nga xamante ne justice bi indépendante day autonome ba corps de contrôle yi ñu autonomiser leen ñu fexe ba ñooyal contrôle interne bi wala mu nekk généralement garage la alors contrôle interne dafa am dafa am solo ministère boo gis dafa amee ay inspecteur interne nañ def seen liggéey saytu lu doxul parce que ñoom ñooy jubbanti lu doxul fexe ba loolu euh, euh, mission bi ñu leen jox ñu ñu mun ko def loolu euh, corps de contrôle yi dafa seen liggéey dafa des ci perception bi ñu am en tant que société civile parce que war a produire un rapport comme Cour des comptes mhm. fi mu ne yorel na Sénégal trois rapports dafa génne en février trois rapports 2015 2016 euh, 2017 ne woon avant la fin de l' année dina génne 2019 2018 2019 waaw génnewu ko nee nañu mars 2022 dinañu jox 2018 2019 2020 ça signifie que ñoom seen bopp seen liggéey dafa des ah ñuy laam-laamee bon amuñu moyen wala yooyu mais man pour man loolu c'est pas recevable ab ah, moyen wala président de la république jotagul rapport bi loolu du lay président de la république envoyé ko lettre euh, envoyé ko rapport bi nga defar quand même moom mooy yilif réew mi la ñuy yëngatu ak lu ñuy def moo koy war a njëkk yëg mais bo agenda mayu ko moom mu recevoir la nga jébal ko rapport bi envoyé ko rapport bi nga siiwal rapport bi sénégalais yi xam loolu des liggéey corps de contrôle yi bu baax a baax merci beaucoup Elisabeth